gaawal gaaw seet si ñii ah, ñoom nag da nga mën a doxee sa soxla de te dara du la umpaseel say jumtuwaay ak sa téléphone ngir nag fépp foo mën di nekk nga am surveillance bu mat sa liggéey ku ci bëgg lu leer nag wooteel gaaw ci numéro téléphone bi li ci yéene kaay Abdoulaye Bopp lañ si àndal Abou maa ngi lay ziar jërëjëf euh, Seydina Omar Ba maa ngi lay fay Walf Quotidien lañ koy tàmbalee mu ngi ñuy degtal programme bi nga xamante moom la nguur gi euh, jëmmal fas yéene askan wi euh, kenn ku nekk mun a jote ci courant bi fi lekk 2025 waaye nag programme googee koppar yu bëri moo koy gunge e, Sénégal xayma na ci lu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards yu toftal fanweer ak ñaar waaye nag am na ci ay partenaire am ay bëri yoo xamante ne ñoo ko cay e, jàppale lu demee ni banque mondiale ak union européenne ak ANF e, AFD AFD ak yeneen i kuréel yoo xamante ne dig nañu nguurug Sénégal lu toll ci ñaari téeméeri milliards yu toftal fanweer ak juróom-ñaar yéen kaa bi di Walf Quotidien moom la xëyee tey ci mbirum courant bi. Le Soleil yi askan wi mun a jote ci courant boobee fileeg 2025 ay partenaire ñoom dig nañu nguurug Sénégal lu toll ci ñeenti téeméeri euh, milliards yu toftal fanweer ak juróom-ñaar ngir ñu gën a mun a jëmmal googu lépp euh, programme Sud Quotidien euh, programme geneen jëm ci jox ndaw ñi xëy ci lu gaaw yéene cabinet emploi fast track njiitu réew Macky Sall ak nguuram ña ngi cay gaawtu ngir fexe ba taxawu ndaw ñi allocation budgétaire goo xamante ne daanaka toll na ci ñeenti téeméeri milliards ak i tamit euh, juróom fukk mu ngi ci euh, Sud Quotidien turbine euh, xëy di ñu yeggee kuréel yi nga xam moom lañ fi samp ngir ñu saytu xew ndaw ñi lu demee ni Prodac ak ANPEJ ak DER ak yeneen ak yeneen yeneen cabinet nag lu toll ci téeméeri milliards ak ñeent fukk dugg na ci ñoom ndax waxtu wa jotul corps des contrôles gëstu yooyu le kuréel ana fu ñu mujjee ci yooyu lépp googu lépp koppar toll ci cent quarante milliards direct news eh, coow li dakkagul ci diggante eh, majambal Diagne ak eh, Souleymane Téliko sénégalais yi bëgg nañ cee gindeeku dossier ba teeri jina fu mbaxana doone benn Souleymane Téliko moo kalaame ci yoon majambal Diagne mi ko tuumal ne njiital UMS loxom génnul ci dossier yi Hissène-Habré na ca koppar yu baree bëri foofee ca Tchad gamu demoon mu ngi ci direct news exclusif exclusif Seydina Omar Ba mbirum foncier maanaam ci wàllu suuf ja Rufisque loolee sax dem na ba Euh, daanaka laaw fépp ca googu lépp commune euh, fu demee ni yéen euh, jaxaay ak ba ci Parcelles Assainies ba ne ca Kër Massar foo tourné gis wa jafe-jafe ci wàllub suuf l'exclusif moo ñu ko yëggee. enquête enquête moom enquête bu yaatu la xëy amal Sénégal coowal suuf du du fi dàkk ndax saay su ne am ñu jóg gàlloo seen morceau xonk cuur ñaxtu ci suuf gañu ne dañ leen ko bëgg a xañ wala boog lu leen ca cëral demewul noonu mu ngi ci enquête l'évidence l'évidence euh, mu ngi ñuy dégtal sargal gañu ne sargal nañ ko Omar Sow ca yëmbal euh, moom mu fas yéene dooleel njiitu réew mi euh, Macky Sall Ndeye Sali Diop di jege ñaale njiitu réew Macky Sall bokk ci kuréel gi boot jigéen ñi bokk na ci dal na ci opposition beek seen i doxalin mu ngi ci l'évidence mandat le mandat dikkaat ak ñun ci tolluwaayu parti politique yi ci mim réew doxalinu politique Sénégal na muy dundee ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique joxe nañ ci seen i enquête la def jëm ci euh, xeexum gorom garab yi ca Casamance yéene kaa bi ne nag ba léegi mbir ya dakkagul ndax ña koy def ñu duppee leen ay trafiquant daanaka luñ ca am rek dañ koy dem làq ji wala boog dem làqu ji foofee ca Gambie ñaari réew yi nag mel nañu ñu télé ci xeexum mbir moomule muy Sénégal ak Gambie moom la le quotidien xëyee le témoin ne lu toll ci ñeenti téeméeri euh, ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk yoo xamante ne nguur gi jukki na ko jagleel ko xewum ndaw ñi ay économiste ñu ngi cay jàngat mbir yi lu mun a jur ci koom-koomu Sénégal. Dakar Times Dakar Times ne njiitu réewum russe euh, bokk na ci salvañe na euh, démocratie occidentale Poutine euh, mi ñu ne ma nga yootu lu toll ci juróom-benneelu mandat mu ngi ci Dakar Times. las mu ngi ñuy tegtal États-Unis fa ñu tegoon tànkam teggeeguñ ko eh, jëm ci tamit ñu mun fee daganal yoonal mbirum góor jigéen loole nag Mamadou Salif Sow ne xel xalaatu ko eh, du njiitu réew Macky du keneen ak keneen du ñu mos a yoonal wala boog daganal mbirum góor jigéen ci mim réew eh, mu ngi ci las stade stade mu ngi ci quart de finale aleya bokk na ci Chelsea war a jàkkaarloog Porto Bayern ak PSG yéen cabinet revanche la goo xamante ne lu ne mun na ca tukkee sunu lamb lu tukkee démb ci jàkkaarloo gañ doon xaar diggante Modou Lo ak euh, Ama Balde waaye nag yëf ya mujjut a sotti euh, ci tasaaro la mujjee ndax ñàkkum kaaraange euh, Gallic Nicolay wax ne moo amoon ci googu def jàkkaarloo mu ngi ci suñu làmb waaw mbaar gaa du leen confiné waat waaw xam na xam nga nag supporters yi dañ fa bari woon euh, ba kenn ku nekk tamit wone xadar euh, ba tax na euh, ñu njort ne xëy na ñaari mbër yi bu ñu jàkkaarloo ci kaddu mun naa jur fitna ak leneen ak leneen. dem boobu leen ñu ngi réclamé lamb. waaw waaw tey ji ubbiwaat nañ ko. Hmm, fitna commencé wane seen bopp. Hmm.